proposé ni ay parrainage loole dafa ëpp Bougane Gueye Dany ak ñi moo àndal coalition gëm sa ñoom nag daan nañuy bind direction générale des élections waaye tamit moom Bougane Gueye Dany daan nay ki nga xam ne mooy directeur des élections di Thiendella Fall ak Macky ñoom la Bougane Gueye tuumal ci jëm ci liste gëm sa bopp nga xam ne dañu ko daal di ci élection député moom Bougane nee na Macky Sall da ko ragala yéene kaay gi di réew ñu koy fekk ay coppite ci seen liste bi nga xam ne nee na ñu respecté wuñ parité ci déndu Ndakaaru waaye nag loolee dañu koo lànkal ki nga xam ne mooy Déthié Fall Déthié Fall tamit niki démb daan nay déposé ab recours ngir nag ñu daal di annulé liste waa Bokk Yaakaar bi waaye tamit recours boobee ko daal di gàntal yéen kaay gi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba desal mooy liste coalition Yewwi Askan Wi gi ne na ñi nga xam ne nag ñooy waa Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu danañu saisir Cour suprême ngir nag mu wax ci mbir mi ndax nag ñi ñii nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu ko jaaralee ci yoon ñoom waruñoo dem ci élection député yi ndax nag arrêté ministre bii di ministre Antoine Diome arrêté boobee nag ma ngi ko fësal juróomi fan ci weeru mai te ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi déposé ñeenti fan ci weeru mai te nag Déthié Fall nee na dafa am loo xam ne dafa wala leer ci bopp askanu Sénégal li nga xam ne mooy ab arrêté ngir nag mu nekk en vigueur bu ñu ko publier rek lay nekk en vigueur te nag lii nga xam ne mooy arrêté ministre Antoine Diome ñoo ngi ko publier 5 mai kon 5 mai la nekk en vigueur te nag nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar seen liste bi ñoo ngi ko déposé ñeenti fan ci weeru mai yéen gii délibération moom Déthié Fall nee na lépp ci boppam moo changé li nga xam ne mooy liste bi maanaam moo dugalaat turu Pala Samb moomee nga xam ne waxoon nañu ne ci liste moom Saliou Sarr dañu ko waxoon nag retiré Pala Samb te dugal ki nga xam ne mooy Ngone Mbengue yéen kaay gi nee na en tout am ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoo ngi tuumalante ci seen biir waaye nag Saliou Sarr ci Déthié Fall li nga xam ne wax na ko du dëgg ay kàcc la man amul benn yoon boo xam ne am naa sañ-sañ di dóor ay cachet lépp nag ki nga xam ne mooy Déthié Fall moo ko defar moo ko traité moo ko caché ma ngi ci Libération ma ngi ci L'Observateur moom Saliou Sarr nee na nag ñi nga xam ne ñooy coalition Wallu Sénégal ñoom dañu leen a waxoon ne leen nag seen poste bi dañu ngeen a andi nag jigéen ngeen di andi ñi nga xam ne ñooy waa Wallu Sénégal ñoom tim dem andi góor problème bi foofu la commencé moom Saliou Sarr nee na bi ñu demee ba vingt-trois heures cinquante minutes te nag amul nenn benn pexe boo xamante ni moom lañu ñu war a defaat dafa wax Déthié Fall na ko léegi comme nag waa Wallu Sénégal andi wuñu jigéen te ñoo jël benn jigéen bu bokk yeewi askan wi loolee Saliou Sarr nee na Déthié Fall daf koo lankoon ba tëdd sa naaj waa yéene kaay gii de la sa ñu xëy fekk fa njaga sila mi nga xam ne expert électoral la maanaam xelam màcc na la lool jëm ci wàllum élection daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy waa coalition yeewi askan wi am nañu sañ-sañ modifier li nga xam ne mooy seen liste bi ndax nag war nañoo mën a dugal ab lettre de retrait ou de désistement loolee loi bi moo ko wax yéene kaay gii de la quotidien quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko mi nga xam ne nag moo jël ay yoon soppi tur ya ca diwaanu Ziguinchor loolee nag tax na préfet bu Ziguinchor daal di jël Ousmane Sonko yóbbu ko fa mbaxana doonee benn cour suprême la ko yóbba ngir nag ñu daal di nag annulé dogal yooyee nga xam ne Ousmane Sonko jël na ko yéen gii di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu am na sëriñ boo xam ne teg nañu ko loxo ca diwaanu Parcelles Assainies mu yor nag ay faux billets dollars yu bare bare bare yéen i kaay di l'Observateur xëy ñu xibaar naan askan wi nga xam na ñoo yewoo Kër ma Massar jamono ji sonn nañu tiit nañu maanaam jaaxle nañu lool ci nawet bi nga xam ne moo dëg ma la askan wa nag journal bi nee na bu ñu nelawee du ñu nelaw ba yandoora la ko waral mooy nawet bi ma ngi ñëw te nag inondation yi ñëpp xam nañ ne nag bu tawee rek Kër Masaar fees dell ko ndox askan wa fay yeewoo ñoom nag nee nañu ñàkk kaaraange gi nga xam ne jamono ji moo nekk Kër Masaar doy na waar askanu Kër ma saara ñoom nag nee nañu daal seen jafe-jafe yi yàgg nañu koo dund te nag li ñu bëgg nag maanaam ñu andil leen si ay saafara yéene kaay gi de la xëy di ñu xibaar naan ñu fan yi nga xam ne moom la ñu génn gisoon ngeen nag ay agresseur heure dàq benn waay ba ci biir këram génn jaasi nangu am moto ma ña nga xamante ni nag ñoo def ñaawteef googee am na ci kenn koo xam ne police teg na ko loxo ña si des ñoo ngi leen di wër yéene kaay gii di Vox Populi nee na police bu Grand Yoff teg na loxo lu toll si juróom-ñeent ci agresseur yéene kaay gii di sunu lamba xëy dañu xibaara naan ñu Lac de Guiers numéro 2 ak Ama Baldé ñaari mbër yii yàgg nañoo tëkkonte waaye dañu doon wax ne ñoom ñaar ay mbokk la ñoo mbokki Ama Baldé jox nañu ko sañ-sañ nee nañu ko bu la neexee demal bëri ji ak Lac